ndeysaan doomu Jilaas moo nekk noonu moom Diagne ndeysaan mu ngi noonu hehe cent pour cent Jilaas Diagne anda la àndal ndeysaan ñu ne maa du ndingaan sañ cey Diagne Jilaas mu ngi noonu ndeysaan borom Jilaas daanaanu lamb la ndeysaan Diagne sama xel day dem ci mam daje oho lay dem bi mu demee tamu ci bom bu bom de 40 dem day sàttalu ci benn kër ndax ca armeel ya moom jaay jilaas mu ngi noonu day sàttalu lamb la Ndeysaan moom Diagne 是不 waaye Décora région de la Fatick Décora koy yaakaarame an sebulor ke fop Décora eh, eh, jaaj eh, ne kalañum no jom anda boga leyna jañum jot xana lay kam ya cofor fo ten ndax ka ref parit fa pen a yono ko ka pen kon jaaj fo lees kene goɗ ka fo kene may ka te kam lenge jega o jok a njal jomne ande jomne ke jal na jokot leke yakarame a futna a futna jom a wacora fo jom ablaye wacora fo jom yemo warab de ablaye jom mbir jege o ruk de kan leyegun coxa adama diouf te ñim ten o kadu koy mexey irwa nuun a kon nuun fo sunu kon nuun mais o nananga koy nuun a gof kat meke jalna fi fo ten jaajaame activé kene foofu fa xaye jaan papier di président so sunu en 2006 ñun laa jaajo koy mbir mi mi ñana faa minun fane ñu ko wala jogolan wala jogolan i ñaam rek o tey waxo yàlla na xam la ngay jam la ñu doon roogu mene inin kilan ñaayin wala kan wala kan apa ko ñu ko topp wala ñaamin fa baax Vamos, acabate, vous préparez. Vamos, acabate. Abdoulaye Ndong, vous allez. Abdoulaye Ndong, Hold the game. koy tale jërëjëf Obole e abdou e boni e dawiro ten fake dawle sénégal fopo andan fop ke nar iyo kaga bona ndiki ablaye diop ke bugona ten ten fiye ablaye ale a cekne sima fiin parce que o feet tanum to kaga ablaye refo xa ando naye aussi ye ka ñoowdana cereer a coox goɗɗo adoreɗen yelowum acco hanoɗenɗen taka foga a yoni fo jiguenum angel fall mayan fall ade fois ko ablaya bug ne cosaan ono an fogeɗen moƴo bugine cosaan ko fogame ñaƴa ko bug moƴo bug ablay cosaan a jafeña kon yaga amateur o fogon amateur voilà ndiki ɗa ɗumɓoyten refoy ablay fekke reɓeka ande ay somare sénégal oxuna angel décorado oxano teranga fe fiya kam sale kam sénégal kam no kin wasil fo ten o kin tugum aywaga fanaga xani ñam kana xanene fiya ngor ale fiyanga ka refeno fiya ngor kin wasil fo ten o kin tugum jañ feke a bugan lool a bugan lool xani bu ñu yónnee day topp nga gaaw ko jërëjëf jërëjëf Ablaye merci. jokkañal Abdou Baro Abdou Abdou katen jom ne baƴa xama fel e cañoma fenani jom e yakarame xu an ne caño ande génération ne dam pakuyino el ne baƴa xama fel tel ke fo tugudela tam a saret xa pamay cum yo te ref naqa may i normal fene to mbiala ngoƴ ira gar haalnoma fin kañatama a a no abdouhadir ka gar aɓeella waagi mogidim xana num muro o roog njugun tamit an ke ta bugna dugal nene waay a foke mada nuna dugal noon waay dugal noon na rogo fan leke toke mada nuroga xan kino ten ok Ablaye a mi de waagim ley tokof sax yaam ke fa naxa maxey andaam me o retanga roga ret fota may fota ngat tong du du du du o naaga lema tatoga meen duga nan na mi jige meen gaynde o ɗeɓa noɗa men an foti kono amin ñaano nakay e yen amano so on jigimna accane jimi a fanjo jigimɓe tiwanta kay jallik jo jowati ka dagi jigim sohla balle waw kon ko pour am dog jomo ñowa jomo refo os jomo riyam to jomo ñowa ɓoɓe kon ablay ke darnogo waso men ko kuɓanoɗe ɓe fiya mbir jege ruk day tourné day tourné day tourné jàkkaarloo micro bi mbir jege ruk lay dëkk lay dëkk wala man jañ jilaas neeran foofu final Jërëjëf jërëjëf solo bi ci topp nag Ablaye xam nga yaakaar nga ne foo mos a dégg Petit Wally dégg fa Baye Fall maa ko tuddee laa daaw sama ànd ak yàgg lool waa ca Ndeye Ndiaye xam nga ne yow yaakaar ñu bokkoo leen ci lan suñu tiite nga suñu lépp nga kon lépp daal di for bu ma wax bu ma waaw muy maam góor kon Angel Fall maam am yaay décoré maam Kor waaw pare bu ñu tuddee mu ñëw di décoré loolu def organisation ci groupe Sow suñu góor production Angel Fall moo ko décoré ba léegi. Angel Fall moo ko décoré Angel joxal maam Diaga décoration suñ ci jógee jàll ci nag tonton François Ndour moom tam ku ne xam na digganteem ak Ablaye xam digganteem ak Mangor waaye xam digganteem ak ki nga xam ne mooy Adama Diouf. décoration Omar François monsieur François Adama jël ko s'il vous plaît waaw waaw pare bu ñu tuddee mu ñëw di décorer loolu yaa ko def Angèle Bakary Sarr la ana Camfrère moo dugal Seri Albarsan wala lampa tamit sa jigéen ñëw dina ci yow la décoration Adama Diouf maa bi Sall moo koy jox décoration. Adama Diouf décoré par léegi nag le commissaire Malick Mbodj nga xam ne. et engagé de capteur bac angersal que les hommes de corps, mais le commissaire Malik Mbaye, qu'il lui fasse, moi je te le prie, tu ne me pas. kon buñ koy décorer dañuy ñëw ci bàq boppam ndey doom na liggéeyu ndey doom ndey doom liggéeyu doom ndey doom liggéeyu ndey doom ndey doom liggéeyu ndey doom ndey doom Mbayang Saala ngi nii bi may yaayu maale bu jël mbaru ndaw sama kër la yendu indil ma enveloppe cinquante mille ci kanamu Mbayang Saala nii kon lii ñuy wax nii kii da ci am moom sant bu baax. merci yaakaar naa ne nag bi ñu jëlee ñu may décorer ah Fatou Wal da nga def dara. suñ ma décoré ñëpp ma waroon a taxaw ndax sonn naa ci lam waaye yaakaar naa ne sax